خادم خادم خادم ministre dem na léegi ma defal la ba ministre laa doon mais léegi ma defal la bagage je veux le téye waay yow waay yow di ay jigéen ci moo la jàppe moo ko def mi ngi nii moo la jàppe nga xam lépp dëgg la barke sëñ Tuubaa Mbàkke dama lay kiil je veux le téye tu vas mourir c'est a le boucher du dimanche c'est moi le boucher du dimanche eh, waaye la laa liiru jaan xaadim jaay xaadim ca kaas la xaadim ca kaas la liiroo koy répondre laay laa ak ca kaas jaan laay xaadim la liiru jaan laay laay ah, ji ñoom ñaar tey sax naa fi ma lay jaaral. xam nga dama mu dee. doon doon kenn. bi dee fii laa ko billahi ci laa koy dóor yow doo dóor kenn yow ay bombardier ay bombardier ay bombardier ay bombardier ay bombardier bombardier ay bala gay dóor moo fi nekk bala gay dóor la